bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wasallam mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax si xadis boo xam ne jaabir radiallahu anhu moom moo ko nettali mu ne yenent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man laqiya allaha laa yu laa yushriku bihi shay'an daxala aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an daxalal naar mu ne képp koo xam ne dafa daje ak yàlla te fekk àndul ak bokkaale kooku aljanna la jëm waaye képp koo xam ne dafa daje ak yàlla te fekk moo ngi ay bokkaale kooku safara la jëm xadis bi nekk xadis boo xam ne bu am solo la te jara bàyyi xel kon yow jaam yàlla bi da nga xër ci sori lépp loo xam ne bokkaale la te nga xam ne bokkaale kat lu lay yàkkal lu rëy a la day yàq sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala day yàq say jëf dafay màbb say jëf daf lay boole si euh, yéeféer yi wala yaas billah moom moo tax na nga sori ko nga tuub ci nga sori lépp loo xam ne bokkaale la mel ni ñaan kudul yàlla wala weeru si kudul yàlla wala jébbal sa bopp keneen kudul yàlla wala mel noonu si ay bokkaale yoo xam ne ñu bari si nit dañ koy def wala woolu sa téere wala mm, di sëriñtu wala mel noonu yooyu yëpp maanaam am na si yoo xam ne bokkaale la am si yoo xam daf lay yóbbee bokkaale moo tax nga bu ba a baax a baax ngir mucc si yooyu xadis bi muslim solo na ko barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh